Bonjour, euh, je me nomme Jorge euh, Diop, euh, je suis la chef du projet Accès au travail inclusif des personnes handicapées que Humanité et Inclusion, le nouveau nom de Handicap International, met en œuvre euh, ici au Sénégal et particulièrement dans les régions de Dakar et de Thiès. TIF, euh, comme on l'a dit euh, ce matin, est un projet d'insertion professionnelle des personnes handicapées qui met en place un dispositif opérationnel que nous faisons avec les acteurs aussi euh, publics, avec les services ordinaires de l'État, comme nous le disons dans notre jargon. C'est ensemble euh, que nous travaillons à rendre ces dispositifs qui existent déjà inclusif pour une meilleure prise en compte dans les pratiques professionnelles de ces agents de l'État, l'accompagnement des personnes handicapées vers l'emploi. Et ça suppose que ça met en, en, avant les travailleurs sociaux, les conseillers en emploi, mais aussi les acteurs de la formation professionnelle. Et donc nous les accompagnons soit vers l'auto-emploi, soit vers l'emploi salarié. Et à côté de cela, nous faisons aussi un travail de préparation des entreprises ou des institutions qui accueillent en tant qu'employeurs ces personnes. C'est tout un travail de préparation de part et d'autre que nous mettons en œuvre. Les personnes handicapées ne peuvent pas postuler à l'emploi si elles n'ont pas de qualification professionnelle. C'est un prérequis. Donc, elles doivent être préparées euh, aussi bien au niveau mental, au niveau technique, au niveau du savoir-être pour pouvoir aller vers le monde de l'emploi. Être embauché, c'est une chose, mais se maintenir dans l'emploi, c'est une autre chose. Et ce projet vise aussi le maintien durable dans l'emploi. Maintenant, les acteurs qui accompagne, ce sont, comme on a dit, les travailleurs sociaux, les euh, conseillers en emploi, qui aident ces personnes à peaufiner leur projet de vie pour les travailleurs sociaux, mais le projet professionnel avec les conseillers en emploi. Et cela permet d'aller vers la seconde étape qui est l'acquisition de qualifications professionnelles. Et pour ce travail, justement, dans le cas de l'équipe, nous avons un chargé d'insertion qui fait le lien entre toutes ces structures de formation et le monde de l'entreprise. Parce que c'est sur la base des besoins exprimés par les employeurs que nous amenons aussi ces demandeurs à aller vers des filières porteuses. Et par rapport à cela, on les accompagne vers une qualification et euh, à, la fin de cela, elles peuvent être recrutées. Alors, euh, la durée du projet est de 36 mois, donc 3 années. Et le choix porté, vous avez dans votre question même la réponse. Hein. Euh, Dakar et Thiès constituent le pôle économique euh, de développement par excellence du Sénégal. C'est sur l'axe Dakar-Thiès que nous avons une plus grande concentration d'entreprises, une plus grande offre de formation, mais aussi euh, une population dense, y compris population de personnes handicapées. Et pour pouvoir expérimenter euh, cela, il faut le faire dans un contexte qui s'y prête et ces deux régions s'y prêtent grandement de la réussite, on pourra aller vers d'autres régions par la suite. Euh, tant qu'on n'a peut-être pas approché une personne <laughs> handicapée, on reste un peu sur nos préjugés. Mais les entreprises, nous faisons un travail de sensibilisation auprès de ces entreprises. Euh, nous leur montrons c'est quoi le handicap et au-delà de tout, nous leur faisons savoir que c'est d'abord la compétence qu'a une personne et non sans handicap. C'est aussi ce tout travail d'accompagnement que nous faisons auprès de ces employeurs, qu'ils soient privés ou publics. Et on a aussi parlé un peu de cette dynamique euh, RSE, responsabilité sociétale entreprise. Ces entreprises qui sont dans une démarche RSE ont une sensibilité un peu plus grande à ces questions de diversité et d'inclusion. Dans le cadre de ce qu'elles défendent, euh, la diversité et l'inclusion, les personnes handicapées font partie euh, de ce pan de la population qu'elles sont tenues aussi d'inclure dans leurs organisations. Donc c'est pas au hasard si nous avons choisi aussi euh, ce, cette entrée, la responsabilité sociétale des entreprises pour travailler avec les entreprises. Donc on a même, on va un peu plus vers ce type d'entreprise que vers les autres, expérimenter quelque chose et quand ce sera probant pour aller élargir à l'ensemble de ceux qui restent encore sceptiques. may Souleymane Ndoye nekk ki nga qui l'insertion insertion professionnelle aux personnes handicapées. ci projet est actif actif nag euh, accès au travail inclusif des personnes handicapées Euh, projet la boo xam ne dafa am bu njëkkoon bu ñu dara bu ñu boo xam ne doxal nañ ko ci Ndakaaru ñu tuddee woon ko Emphase emploi des personnes handicapées au Sénégal mu yemoon Ndakaaru actif ñëw nag euh, indi jël loolu xam ne ay acquis la pour dolli ko ci li nga xam ne moom la moom la ñu trouvé ne dañ ko soxla pour yaatal ko indi ko ba Thiès euh, actif dafa ñëw pour gunge acteurs yi déjà ñi nga xam ne ñoo nekk ci service emploi yi muy nga nekk direction de l'emploi wala nga nekk Eh, ANPEJ wala nga nek ci eh, service développement communautaire wala nga nek service euh tout service de l'emploi yep moy mm. service ordinaire ñom pour que ñom ñu am taxawaayu gunge personne handicapée pour mu am emploi bo waxé emploi nak da ngay wax formation professionnelle ndax ku qualifié wu mëno wax ni mëna yegg ci emploi donc euh, actif day ñoo gungé len pour ñu am formation professionnelle ànd ak waa ministère bi nga xam ne moom moo moom moo moom moo ko yore fii ci Sénégal ak yeneen centre de formation yi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi wala ñu ngi ci biir gox bi nga xam ne fi lañu nekk di Thiès ñoom ñëpp buñ leen kii da leen di préparer parce que accompagner personne handicapée du c'est pas banal c'est vrai parce que li li gën a kii mooy dañu am préjugé yu bëri fii ci Sénégal ay yoo xam ne dañ koy lal ci seen kaw ba tax na ñii di xeeb wala ñii di am beneen xalaat boo xam ne nekk ko ci alors léegi nag ñoo acteurs yëpp bu leen di gunge préparé leen ànd ak ñoom yee leen wax leen dinañ euh, dinañ leen mën a accepté ci biir centre de formation bi pour ñu am qualification mais suñ ci paree tamit dañ leen di mën a ak gunge ba ñu yegg ci entreprise yi nga xam ne ñoo recruter parce que employeur bi ni ngeen ko xamee moom li muy gën a xalaat ci généralement mooy lan mooy profit lan mooy bénéfice am moom ci loolu lay nekk mën na xalaat nag ne personne handicapé bi su dugg see du ko indil loolu donc ñun ñëwuñu pour ne na recruter rek pour recruter personnes handicapées di def social mais dafay recruter nit ki par rapport ak compétence parce que ku nek am nga compétence bo xamné ne bu la ci tagaté war nga ko mën faire valoir en entreprise non seulement amna tagat bobu pour que nga am capacité am am qualification mais amna tagat bo xamné aussi dañ lay xamal nit ki nu mu war a nekkee à l' entreprise maanaam ci sa comportement en entreprise pour que nga mën a mën a mën a mën faa toog parce que du da ngay dugg rek pour génnaat mais nit ki bu duggee aussi dafa war a toog mu am mu nekk emploi durable. dafa am ay ay ay tërlin yoo xam ne wala ay gëm-gëm yoo xam ne dafay nekk ñun sax moo ñu mag ñun ñëpp mais comme mu ngi fi euh, li koy gën a wàññi mooy ñu sensibiliser employeurs yi sensibiliser leen préparer leen yee leen xamal leen aussi parce que ñu bëri xamuñu sax ni ci euh, am na ci poste yoo xam ne boo ko dénkee personne handicapée ci le sa rendement ëpp xamuñu mais comme xamuñu il faut ñu sensibiliser leen préparer leen wal leen ne ñoom ñoo ko war a accueillir Allah la ay disposition rek la parce que type de handicap bi bari na mais bu ci nek amna lo xamne xam ne mën na ko indi ci biir entreprise té ñun ñëpp nak nañu nañu bayyi xel ne biñuy jang école dañ doon bokk ak ay personnes handicapées en classe damay am souvent diko wax té bañ ca bokké ak ñom classe daaw ni la raw limay wax ni ñun ñëpp nañ ko nañ ko nat suñu bop daaw ni mo sa raw ñoy nek P wala 2 légui buñ démé bo wara xey nak nañu liggéey ñu bëgg jël ñi doon jël 4e ak 5e def leen ci kanam pour ñu liggéey bayyi ñu doon jël P ak 2 loolu yanul maanaam ndax bu ñu bëggee valoriser li ñu jàng ci entreprise la ñuy dem mais la jàng ñi koy valoriser moo ñu jiitu woon te ñun dañuy gis ne bu ñu soxlaa recruter dañuy jëli ñeneen parce que dañu xalaat ni handicap bi handicap boobu mu am wala jafe-jafe boobu moo am limité def ko limité ba du doon dara te handicap ak compétence lii dara léewu leen xam nañu leen am na lu ñu mën mais nañu fexe nag yaatal xam boobu ci entreprise yi ak ci employeurs yi ba ñoom ñu dugal leen ci seen biir te ku ko ci def di nga xam ne lii dalay yokk rek mais du la wàññi dara li ñuy moytu moom mooy nit ki di recruter parce que dafay def recruter parce que personne handicapée laa jël. maanaam ñeewantal bi daal ñeewantal bi non nekkuñ ci loolu. projet bi ñëwul pour ngay ñeewantal nit ki doog ko recruter da nga ko recruter parce que dafay dafay concourir poste bi. dafa am lu mu man dafa am lu mu man lu mu bokk ak jàng ak ay moroomam. yow boo koy jël bul xool ne handicapé mais na nga xool poste bi nga soxla ndax moom mën na ko accomplir maanaam tâche yi nga yi nga yi nga koy confier ndax mën na ko accomplir léegi nag projet bi dina ñu indiwaale yenn matuwaay par exemple bu fekkee ni ki dafa nekk personne nen mooy koo xam ne dafa dafa gàtt ba dafa gàtt xam nañu ñooñu mais ñooñu bu ñu ñëwee dafay am ay ajustement yu def ci fauteuil ba ñuy toog loolu projet bi da koy indi dolli ko xamal leen ne kii bu nekkee ci disposition yi dina moom euh, euh, ci biir personne handicapé dafa am ñoo xam ne li ñuy wax sëlmaxa yi xam nga ne ñooñu dañuy am problème euh, maanaam bu li ñuy wax ordinateur yooyu yëpp ñoom dañuy koy mais du ñuy gis man su ma leen envoyé message email ñoom nan la ñuy def dañu am benn benn benn benn logiciel boo xam ne da leen koy da koy liiral ñu dégg ko seen nopp bu ñu ma tontoo tamit logiciel boobu au lieu man duma ko liiral mais daf ma koy yónnee par écrit mm-hmm. donc ñoom bu nit ñi xamee ne ñoom mën nañu mën nañoo liggéey ci suñu biir. dina gën a yombal seen intégration ci biir entreprise projet bi dafa am ñaari volet c'est vrai que Dakar dañoo jëloon lu mooy euh, emploi salarié rek mm-hmm. mooy ñi nga xam ne leen di embauché ñu nekk ci benn entreprise ñu jël leen ñu liggéeyal entreprise boobu mais léegi dañ ne léegi nag fii bi yoon dañuy jël képp koo xam ne am nga possibilité créer sa entreprise te loolu état du Sénégal moom moo ubbi ay bunt yu mel noonu pour que di financer ay nit di financer ay ay groupe pour que euh, ñoom ñu liggéeyal seen wala ñu seen liggéey boobu loolu tamit ñu ne nañ ci intégré personne handicapé liñu liñu bëgg moy ci lepp lo xamné dañ ci nek diko def ñu intégrer dimension handicap ci lool manam buñu am euh euh doxalin boo xam day beddi exclusion lool lañu bañ comme fo dégg légui muy politique yi muy euh, société civile luñu programme buñu ñuy tëgg rek nan programme boo xam dafa and ak inclusion yaa ngi yéen a dégg ñu ngi répéter fu nek lool nak na mat bu mu nek aussi ñu wax ko rek diko wax ci kaw te ci jëfin du yegsi handicap nag nekk na euh, bërëb boo xam ne wala kër goo xam ne am na ci ay am na ay matuwaay am na ci xam-xam xarañ na trop ci lépp lu jëm ci mbiri inclusion donc day ñëw indi loolu pour que ñëpp mën a xam ñëpp mën ko jëriñoo ñëpp bokk ci taxawaay ci loolu. ci ni nga ko war a tënkee dafa am benn loi boo xam ne ñu ngi ko tuddee loi d'orientation sociale euh, maanaam loi boo xam ne day joxoñ lépp yëngu-yëngu bu ñu war a def jëmale ko ci personnes handicapées yi ndax gis nañ ne buñ ko deful ah, nit ñi dañ continuer di xalaat ne personne handicapée nekkul koo xam ne à naa ah, jëriñ dara ci société alors que du noona euh, personne handicapée déficience bi moo tax mu am jafe-jafe wante na mu ngi ànd ak xelam ak mën-mënam ak compétence am loolu moo waral état bi loi pour que kenn bañ a ci personnes handicapées yi ce qui fait que dans le domaine de l'éducation am ay euh, disposition yu ñu tëral boo jëlee dans le domaine social am na disposition mais comme liñ ñu jagleel dans le cadre de l'employabilité dañu bëgg également que eh, état bi comment dirais-je kon ci tënk daal loolu mooy li nga xam ne moom moo nekk ci loi bi bon maa ngi leen di gërëm